ses propos. bon baal man ma dégg ay propos ni ma ko jàppee ma. mais bi daal noonu la déggee ak nangam. léegi Ousmane baal ma ñëw ci Ousmane Sonko. voilà Ousmane Sonko de nit ñi dañ ko gisoon bi muy opposé muy wax ñu ne wax ji daa bare du selaw du noppi du nangam nangam yooyu mu yéeg ne tekk di doxal. li ngay am pour pour dégg président Diomaye di wax sax néew na fi ñu toll nii nga am ci Ousmane lu toll noonu tekk ji gën a fi ñu toll nii gars yi joom bi yëpp tekki Ousmane moo leen gën a jombal kon bu waxee loolu même ba ci man mi jour bi ñu déggee wiiw xam nga lan moo tax ma génn man dew moon naru moon a dem pour zibilé fi ma nekk joguma fa dama jàpp sama télé di seetaan wal Walfadjri ba mu yàgg dégg benn waay Babacar Ndiaye moo nekk ci yeesal bu Diagne Fada naan sur 46 départements ah, waa Diomaye président 12 lañu ñu ñun lay reste 33 xaw ma quelque chose comme ça pour l' instant ñun ñoo ko gagné ci lay doog a dem nag fa ñuy zibilé di doog a taxaw maanaam dama dem. Mhm. pour dindi kii mais man sama bopp. dama mel ni kuñ sas te pourtant man maa ngi ni benn satisfaction rek laay am ci mbir mi. Mhm. mooy ñii jiite dëkk bi. Mhm. teg ko ci yoon. Mhm. li war a am yëpp am. xooluma ci pal xooluma ci leneen ak leneen benn ambition laa am boo xam ne sax avec ou sans ñoom. dama koy dem wuti. muy ci élection législative soit ma bokk ci seen liste moo ma gënal. position bu baax bu boobaa moo ma gënal. su ma ko kiiwuti dem jàkkaarloog ñoom feneen wuti ko kon xaaruma ci ñoom ndomba tànk wala privilège wala nangam. parce que dama jàpp ne ça da ngay bu ñu jógee foofu bu ñu bu ñu jógee foofu Ibrahima waxtu mi ngi tënk le cas de Ngagne Demba Touré. non loolu boo ko laajee wax le cas bu ñu hmm. ci dikkaatee tuuti gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni moom amoon na ko ci ancien régime bi ñu gis ke ni itam dem ba Touré sonnoon na ci opposition bi bokkoon ci Pastef actuellement gis nañu bi nga xamante ni euh, dugg nañ ci campagne électorale sax mu daal di jugee. Mali ga mu nekkoon daal di duggaat ci biir réewum Sénégal donc ñu gis fa mu dawoon dem gàddaay opération gàddaay donc ñëwaat ci ci nguur gi ci réewum Sénégal ñu daal di koy tegaat loxo donc actuellement bu fekkente ni génn na ñu daal di koy euh, nommé comme nañu ko xëyee gis euh, ndiki euh, démb hmm. maître Ngagne Demba Touré nommé DG de la société des mines du Sénégal ban appréciation nga koy tuddee est-ce que tey jii mën nañu wax que ni appel à la candidature ba léegi sénégalais mën nañ ci wax wala comme ni ñu ko waxee woon séddoo la ñuy la ñuy gis non du séddoo parce que déjà poste bi ñu ko jox lu mu man la daf ci def teesam maanaam yóbbu nañ ko fu mu man fu mu taqe fu mu aay gars yi dañu gis la greffier mais dañu wax dañu war a xam ne dafa dem defi teesam ci wàllu yi nga xam ne moom la taxaw maa ngi fàttaliku moom benn pa boo xam ne moom la ñu dénkoon yaakaar naa itee la nekk mais pa bi moo doon invité moom la waroon seex seentu mu joxe information mais mu nekk ak ngañ di ko di ko di ko laaj naan ko waxal ci li waxal ci li maanaam ngañ maanaam pa bi moo tabbu ngañ avant même ñoom ñuy gañee euh, kii avant ñoom ñuy gagné même débat boobu du ma ko fàtte mukk mm. Mouhamed Diallo moo ko doon amal seen confrère. Mm. maa ngi dégg sax Mouhamed Diallo naan ko dafa taq daf ko peeg. Mm. <laughs> yooyu paa <laughs> ba mu yàgg ma ne mais ngañ fii ñu ko teg paa bi la moo waroon a toog foofu di leeral mer nga met ngañ mi nekk opposant di ñëw di teg mais dafa mel ni moom moo nekk di opposé xaat kii muy muy muy muy xale nag di jàmbaar am xam-xam. donte ne ci wàllu sàq bi gàddaay bi man d'accord ma ci woon parce que moom mbir yi moom gars yi lu ne mën nañ ko wax. da nga ne warul woon gàddaay non non non non non parce que te te te te ma biñ ko jàppee sax maa ngi naan ah, heureusement pour moom. ndax lan non non bi mu ñëwee ak fi ñu ko jàppee buñ ko jàppul woon parce que am na nit ñoo xam dañu tëdd euh, ngir yow dañu àndoon ci sa group wala nangam ak nàngam xam nga man dama ci am sama benn xarit boo xam ne Guèye la sant euh, ay magam samay xarit lañ. jubluwuñu sax am na ci ñoo xam ne jubluwuñu sax euh, waa Pastef ak yooyu mais bi ñu jàppee booy boobu te ngañ daw après sentiment biñ doon am ak yooyu ma ko doon wax ak ñoom dama doon naqari ma naan ngañ su ma doon moom même bu may toog ñu may jàpp déjà contrôler li ngay wax à tout moment mën nañ la jàpp mais da nga amoon benn syndicat bu dëgër boo xam ne ci greffier yi déjà daf lay couvrir xam nga jàpp daam yombut mais jàppoon ngañ dem ba turé tamit yombut bu góor góorlu woon tuuti rek jàpp ko mën na mën na continuer di gën a jafe sans dépend ci mooy ngay wax xaj na nag am na affaire yu fu affaire bi tolloon fugg bi ak yooyu mm-hmm. Mm-hmm. mais bi mu dawee ba pare rafetlu ma daw bi mais bi mu ñëwaatee bañ jàpp ko dama ne donc ah, da nga jàpp ne dafa daw daw la bu dul daw lan la gàddaay ak daw seen di gàddaay benn la rek gàddaay ak daw benn la xam nga mën nañ laa génne mm. ak nga génn am na lu tax nga toog. ba c'était pas stratégique aussi. parce boobu boobu jamono jàpp nañu Ousmane Sonko jàpp nañu ki nga xamante ne. non non bu amee nangu naa bu ma amee muy stratégie. donc donc donc aussi il fallait que kenn. saa wolof ngay waxal man bëgg. Hmm. mbër mu mel ni euh, nu mu tuddati euh, Boy Niang mënumaa bëgg mbër mu mel ni Lac de Guiers. la non parce que man damaa bëgg sport de combat dama bëgg nit buy taxaw dëggal boppam di attaqué man sama sama kii xam nga kenn ku nekk ak say nit nan ngay bëgg nit loolu man la. man mii may wax ak yow. toog naa benn instant ñu signalé ma ne ma ne ma tey bul fanaan sa kër benn ma naa la ko wax seen benn naataango buy nekk jot na am na ci koo xam ne ci kii. daf ne ma bul fanaan sa kër bien sûr ma toogaat kilifa ci boppam ku nekk fenn ne ma bul fanaan sa te effectivement noonu la ma dem jógee sama kër dem sama benn xarit bi may dégg ma dem war a fanaan këram pour bu ma paree dem mais ni ma toogee ba mu yàgg. ma ne ko ma ne ko diw mu ne ah ma ne ko lii daal c'est pas ceddo sama kër laay fanaan mu ne lan ma ne ko fa laay fanaan bi ma ñëw ci kër fekk naa voiture banalisée mu taxaw nii ma xam ne carrément ñii man maa leen tax a dama ñëw ba kii leen gestu leen continuer dugal sama kii ci parking bi yéeg tiim leen ñu ngi fa toog pendant une heure maa ngi leen tiim ak yooyu jël sama téléphone di kii yëpp ñu ngi may xool ñu ngi may xool parce que seen téléphone bi ngeen seen ak ki am na lu doon leer ci kii mhm. après ñu fay ko mhm. dama jékki-jékki toogaat dégg leen ñu taal ñu taal dem xam bi may dem maa ngi fàttaliku jour bi ñuy sibile am na ci kenn ci leader wu Jomaa yi mu ko demal saa wolof yow lan mooy secret mu na ah ba Macky jàpp la ah bon bon ma ne ko yàlla yow yow nga naan may ah boo te xamoo ko bi bi ñuy wax <laughs> waa jooju tappalekat boobu doon tappale jour bi ñuy def euh, te te waa di leen giiñ naan euh, code wifi bi xaw ma lan boobu noonu du buñ paree kan lañ doon wow pour pour pour di ko di ko di ko di ko déglu un certain cam euh, kii nu mu tuddati Diagne la xaw pour kii wu di Grand Dakar bi commissaire Grand Dakar bi kan la woo di ko di ko di ko di ko donc ça si je comprends bien tu veux dire que ni euh, Ngagne Demba Touré dem bi mu dem nii bokkul woon ci loo xamante ni waroon na euh, mën a yokk crédibilité wala engagement boo xamante ni am na ko ci biir euh, opposition bi mu daal di ko fi bàyyi dem est-ce que du loolu tey moom moo tax mu mérito li nga xamante ni tey. tey non non fii daf ko mérito daf ko man dañ ko jox luñ ko xam nekkul partage di gâteau. su doon partage bi gâteau ay kii ya gënoon sonn wala kii ya a nangam ak nangam am na ñeneen ñoo xam ne mën nañ leen a jox mais mbir mi xool la ko man est-ce que mën na ko gis mu ko ko gën a mën. donc la moo tax ñu parce que d'accord woon non non loolu côté militantisme la ak biñ tollee ci xeex bi man saa wala man maa jàpp ne da ça n'a rien à ak. Hmm. compétence su ngañ dem ba turi ak xarañam ak ak ak ak demee noonu. non non loin de là. Hmm. man kuy dem di jox ñeneen ñoo xam ne nekkuñu. ak ci parti bi dañuy gis ne maanaam li man lañ ko jox rek te foofu lañ koy xaar te bu ma señoon nag ni ñu defee poste ngañ dem ba turé bi te loolu yëpp même ñi ñu jox yëpp noonu la deme mm. benn poste lañ fi joxe nit ñi di ko laam-laame te ñi koy laam-laame ay soxor lañ te mooy seen seen seen corporation bi mooy kaawu papaale te kenn ku la ci mën a indi leneen amul benn post bu ñu la jox du ministre du directeur ak mu am accam te ay opposants ñoo fi nekk. gars bien sûr mais mais mais boo dégloo li ñu wax ak coxor rek la <laughs> maanaam du tey du ci compétence du ci leneen ak leneen léegi joxaan ma beneen. boo nee suñu corporation bi day xaw a compliqué. parce que journaliste yi dama ne ña koy wax ci seen. non ña koy wax ay journaliste dégg naa ko ñu wax ko. ay journaliste ah waaw waaw dama ne ci seen corporation bi lañ bokk loolu xam nga nag yéen yéen. yéen nag du ngeen yàlla. mais non déglu ma déglu ma faaw nit di wax seen xalaat ci yéen est-ce que am na ay journalistes yu joxañ Pape Alé wala joxañu am na ca la ëppee loolu rek laa wax maman boobu nga bëgg ma ah, non non yeneen corporation yi gisuma benn kuñ fa jox poste ñu taxaw kaas il a raison il que ah! Euh, boo déggee ñi journaliste yi xëj nañ ñi ci ah, boog noonu ñi ma ci jox crédibilité ni ñuy waxee te hmm. ñooñu mu nga lëf aussi bu amee daa am ñu ci war a wax mhm. am ñoo xamante ne ñoom lañ ci war a déglu mhm. muy waa correct rek ñu ci waxee hmm. ñoo ñoom il aurait voulu hmm. maanaam ñu def la promotion interne interne d'abord ñi fa nekkoon te loolu ñoom ci ci waa correct la ñu ngi ci biir RTS voilà ñu nekk fa ay cadre xam boîte bi ñu dénk leen ko bu loolu amul appel à candidature ba ñu waxoon ñu def ko. ñu tànnal leen ñu tànnal leen waxuñu loolu de waxuñu woon loolu de. defal naa rek ñu tànnal leen loolu les propos bi nga xamante ne joxe nañ ko ah, ci loolu la dikk moom. waaw waaw waaw pare li wax di dëgg waxuñu loolu. <laughs> maanaam maanaam. non Diomaye président non non loolu bu dëgg <laughs> Diomaye président non foofu damay wax kii bee taxaw na en tant que Diom ki bokk ci Diomaye président certains postes lañ leen jaay. ci lañ woo nit ñi ñu voté ñu. ci loolu la ñu war a àtte am nga certain mën nañ ca taxaw waaw certain dafa yaatu. waaw ah. waaw même bu yaatoo loolu la ñu wax rek même bu ñu taboon jël ñaari poste def ko appel à la candidature wàccoon nañoo gi yéen <laughs> voilà. xam xam nga xam nga li ñuy wax. mais tamit du loolu la ñuy xaar si yéen. waaw non dégg mais est-ce li ma la waxoon non xam nga lan laa. du ma mës a fal ku ma bokkal deret def leneen loolu kàcc la. mais certain poste boo ko defoon ba pare daal jëw ñaar def ko ci kàccoo. certain la. waaw certain alors alors Ibrahima wax ci léegi ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy peut ci Pape Kaaw Pape mhm. mhm. am na ñoo xamante ne aussi c'est des attaques personnelles. ñoom wax dëgg fa yàlla seen attaque. seen appréciation la ñu nit ki. et mhm. tout man ces considérations la wax dëgg fa yàlla du ma ci dugg. mais ñoom li ñu wax la promotion interne au des des cadres de la RTS. lu war a mën la fu mu bokkoon. Euh, ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne mais est loolu ngeen war a copier comme. déedéet dafa am benn pic bu mu. bu mu xudóos bu nekk est-ce la nekkoon. non mais cest à pas dire que ni pas dire que fi waroon nekk dafa war a defal. effectivement. bon mais mais déedéet non non dama ne. ñoom dañu tamit dama ne boîte. loolu waa RTS ñoo koy wax wala ñeneen ak ñeneen mais loolu du euh, logique. Euh, loolu euh, loolu du poste bu nekk. ña fa doon liggéey rek lañ ko war a gis nga nomination. Ah. gis nga nomination gis nga nomination. exclusivité wu chef de l'état la. au hmm. pire des cas premier ministre. c'est-à-dire que moom mooy nommé ku mu bëgg kaka neex. Hmm. moom nommé na Pape Alé maintenant les gens aussi ont droit de commenter sur ah, ça bien sûr bien seen commentaire moo infondé rek loolu rek c'est-à-dire que ñu nangaloo seen commentaire bàyyi gars yi aussi ñu commenté mais tamit bàyyi ma commentaire ci seen commentaire wala ne seen commentaire la quoi Ibrahima donc donc euh. par rapport ak ak ak ak ak certains un programme wala bokk bu fekkee ne programme la. wala promesse la. wala engagement la aussi je pense que ne boo demee ba koy taxaw di ko wax ci ak kanamu askanu Sénégal dafa a nekk lu leer c'est-à-dire bu fekkee da nga jël ay euh, expression fourre-tout. Hmm. expression boo xamante ne lu la neex nga ciy dugal. Ah. ay certains. Ah. xam nga journaliste yi di jëriñ. xam nga lu teewoon yow booba yow yow yow yow xam nga xam nga pas pas intellectuel non xam nga non non non ci déglu yaa ma doon daj. presse presse intellectuelle waaw baal ma baal ma relance la baal ma relance la presse intellectuelle bi yéen nekk yow lu teewoon yow nga invité waa Diomaye ne leen lu tax seen lii furtu la avant muy dem nga dimbale askanu Sénégal bu boobaa danañ taxaw dëggal seen bopp lu tee nga def liggéey boobu léegi déglu naa wax c'est-à-dire expression furtu yi jël di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko balancer comme ça ensuite que mu mu war a nekk après ab daw laaxu nga nangu ko yow. après ab daw lay doon parce que boo ne nii ñoom saa ñooy taxaw ci plateau yi ñu ne certain la ñu. Ah, benn wala ñaar certain la ñu. non non ñaar wala lu ko ëpp kay benn moom nekk <laughs> donc donc. benn moom c'est-à-dire exigence boobu noonu. Ah. ni mu ko waxee. Hmm. ñun en tant que. presse taskati xibaar war nañu am waroon ngeen a waroon nañu am war nañu am ba tey jii nii waroon waaw ba tey ba tey wayu na mbuus parce que programme bi joxe nañ ko ba sénégalais yi voté man je parle du am na yeneen yu war a amati waaw kay buy amati waaw kay am na yeneen c'est-à-dire que war nañoo am Euh, xarañte ak aussi ak ak ak ak ak exigence. Mhm. par rapport ak yenn yi mu leer. ci mhm. programme ak ci mhm. déclaration. ñun am nañ ci part de responsabilité. askan bi itam am na ci part de responsabilité. par rapport ak exigence ak lépp dafa leer ñu teg ci table ci table parce que boo falee ab président. juróomi at képp moo tax ngay lañ la joxaat droit. pour nga pour nga folliku. en tout cas bu ñu ko jaaree ci ci yoon. mais maintenant man je dis que. bu fekkente ne ici ñi ñu ngi nga ngawate yenn expression fourtu yi ma ko tuddee mhm. ay certain mais mhm. aussi ñëw ci askan wi nga wax leen que ne léegi la parce que def nga mercredi dama def nga mhm. ah, eh, ñëw nañ ci askan wi di leen wax lan laa fi ba la boobu sama njariñ <laughs> non maa ngi nii di la ko tey mercredi ngeen ñëwaat defaat encore bi yeneen nomination ah, ah. ba tey gars yi defar seeni CV daas fanaanam denc gisaguñ dara mais aussi loolu dafay dafay dafay dafay nëmbal askan waaw gis nga kenn ci joomaay président mi ngi toog ak yow en face <laughs> li nga wax naan askan wi dèjà askan wi laa bokk. am na loo xam ne bi ñuy présenté suñu programme fële ci Radisson Blu. Hmm. am na ñaar yu ci dugg. ñu nga xam ne en tant que membre ànd sàmm jikko yi. Hmm. maanaam kii woon na ma maanaam xawoon na nëx ci sama kii te ni mel ci man ni la mel ci Ababacar Mbuub pour ma wax la ma saa ci wax la noonu la mel ci im euh, imaam euh, Ahmed Dame Ndiaye hmm. noonu la mel. ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu baree bari soo leen doon kii di nga ko di nga ko moom laa doon xool sax voilà mi ngi nii voilà mooy lii